yéesu def ñuy wax ne ah benn garab nag moom ci boppam nee na man maay garab bi yéenay nekk banqaas yi ku sax ci man dinaa sax ci yow te ku sax ci man te doo meññ meññ yu baax dinañ la dagg kon nag nañuy meññ ay meññ yu neex te xel mu sell mi xel mu sell mi dina liggéey ci suñu biir xol te dinañu jox ay doom yu neex ay doom yu baax te am maana lool xel mu sell mi kay lu muy jur ci ñun mooy mbugeel mbégte jàmm muñ laabiir maandute ak suufeel sa bopp ak li ni ci garab bu meññ meññ yu baax duñ ko dagg mukk wante bu ñu meñul meñul yu baax a borom bi nee na faw ñu dagg ko te di ñan ko lakk nañu ànd ak suñu borom bi yeesu di meññ ay meññ yu baax di màggal borom bi te di yëkkati turam moom mi nekk ci asamaan su kawe nañu dem si yépp dem leen ci àddina si yépp te ngeen sàkku ji ay taalube dem leen waar nit ñi ñu tuub seeni bakkaar te sóob leen ci ndox ku gën dina mucc waaye ku gëmal des nañ ko àtte maa ngi ak yéen di ànd ak yéen ba keroog di àddina ti tukki ah sama mbokki yi yëg si nañ ci njeexitu jeetaay bi def naa ne li ngeen jot a déglu yépp lu neex la te am maanaa lool bu leen des rekk di xalaat war ngeen a xoolaat kañ ni nit ki mën a def bi am dundu yàlla ci xolam sama mbokk yi dégluwaat leen bu baax lu ñuy waxtaane fii te di ngeen ràññe bu baax lan mooy dundu chrétien lan la chrétien gëm ban sarax la chrétien nangu ne moom la sarax bi yàlla wàccee mooy ramu nit ñi yàlla dafa daj Jésus ci bant ba mu wuutoo suñu tooñ mu doon sarax bu am maanaa bokkul dara ak sarax yi ci àdduna si ngay gis sarax bi kañ moo gën te moo gën ci sarax yi yépp te moo gën a kawe ci sarax yi yépp sarax bi mboot la yal na la yàlla ubbi sa xol ndax nga mën a gis mbootu yàlla te nangu ko ci sa biir xol cere jërëjëf yal na leen yàlla barkel amen